ورحمه الله تعالى وبركاته ني لين دي نيو دي زياره دي لين بالو حق دي لين بال دي نيان يالا سبحانه وتعالى يال نانيو يالا بوله بال دي سانت جوليت ييب دي سانت سنغال ييب سي سن دال غي نيو اندال اك سن مات غي نيو اندال سي ميرمي دي ديلو دي فاتلي دي ديلو دي فاتلي سما بوب ديكو فاتلي جوليتي نلن سنغال ريو جوليت لا ريو كولتور لا réewu jàmm la réewu bokk la ak yërmande te li am ci li nga xamante ni moom la ñuy dégg fan yi ci diggante euh, Wali Seck diggante imam Kanté imam Makhtar Gueye ak boroom xam-xam yeeg kilifa diine yëpp macha allah ñun jàngat biñ ciy def mooy euh, Wali na góor góorgóorlu bu baax bàyyi xel li nga xamante ni mooy. yoon bi mu jaar ndax am na yoo xamante ni baaxul ci dëkk defoo yaa def yàlla xam na ki def waaye daal ñu ngi koy wax mu moytu euh, ndax bu yàggee mën na indi ay jafe-jafe ci li nga xamante ni mooy wàll wi mu choisir di fi jaar bu loolu weesoo tam li Imam Kanté wax dëgg la ndax boo nekkee ci yenn yoon yi faw nit ñi jéem a dal sa kaw pour jéem la destabilise

Euh, papam itam di Thione Seck euh, ci kàddu yi mu génne rafetlu ñu ko ndax mënoon naa waxe ne deneen donte am na lu ko naxal ñu wax ko ci doomam waaye mënoon naa xool na mu gën a yiwee na mu gën a dalee na mu gën a rafetee mu wax ko en tant que mag loolu mooy li nga xamante ne ñu ngi ko koy wax di ko fàttali fàttali incha allahu rabbi di wax itam ci turu convention national des jeunes tidianes bi nga xamante ni man maa ko jiite hada wa billahi tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu